tali yi dafa dafa xat même tali yu bees yi dafa xat oto yi xajuñu foofu euh, te tamit euh, ñu leen di délivrer permis yi euh, jarul yoon bu ñu jàngat bi ñu am mooy corruption bi mu ngi fépp loolu yàgg nañ ko wax mais mu ngi service de mines parce que da ngay gis ay ay ay oto boo xamante ni waruñu am waruñu am visite technique mais dañuy am visite technique oto tamit bu amul visite technique su rombe benn alkaati su jox ko 1000 francs day jàll donc loolu lan lay jur day jur ay nit yu dee te doo xam euh, yàlla euh, kan lay jël donc loolu moo tax ma ne ñun ñëpp Sénégalais yi dañuy war a taxaw pour xeex corruption bi ci dëkk bi euh, ñoom ñëpp tamit dañuy war a taxaw seetaat suñu bopp xool suñu suñu doxalin suñu melokaan nañ fexe ba loolu méngale ak suñu gëm-gëm dafa am lu ñu gëm ñun dañuy wot dañu ne ñun ñëpp dañu dafa am lu ñu gëm bu nga xamante ni

Euh, président de la république sax su jëlee benn décision euh, sous François Hollande ou ko Obama nous avons tàccu changer changé nous mu décidé woon donc da euh, situation politique nous sommes parti au pouvoir le parti nekk ci l'opposition ñoom ñëpp dañuy nangu nekk jaamu tubaab yi jaamu banque yu nekk bitim mais nekk ñu nous ñu fii pour jàppale sénégalais l'autre tamit il faut ñu leeral ko sénégalais c'est loolu euh, moom c'est fasciné. Pambo waaw traité bien Malaki yow sa dama ne dañu dañu loolu euh, askanu Sénégal. Euh, bëgg na mu yoon. parce que woote nañ pour. waaw dinaa ko dama nekk ci ci loolu. waaye dafa mel ni nguur gi daf ñu ko sànni comme di ñu lëndëmal di di nëb yeneen yeneen toj bu am ci ci nguur gi. te euh, Tanyele euh, président de la république faut reconnaître que moom dafa jot ci xaalis bu layul moom moo ko wax ci bopam donc ñun dañu né ñun wa moom ci rew dañu bëgg justice bi euh, wala benen autorité ci dëkk bi mu nak autorité morale mu nak autorité judiciaire wala autorité politique mu mu laccé président bi yow xaalis bu nga jël bu nga xamni ni layul lu tax nga jël ko te est-ce que lolu yow waroo ñu tontu exactement ci euh, euh, xaalis bi fu mu nekk da nga ko comme yeneen parce que euh, benn président amul droit di joxe xaalis bi xaalisu askan wi di ko jox ay xaritam ay ay ay mbokkam su fekkee Macky Sall dafa jot ci xaalis Bobu, daf ko war a Sénégal Voilà justice bi jóg téye ko comme ni ñu téye Tahibou Ndiaye loolu mooy yoon égalité loolu moy Sénégalais yam ñun ñëpp war yam. loolu ñu loolu mooy suñu message. diggante Malick Noël Seck ak parti socialiste. non loolu ñun ñu di xool suñu kanam naka Sénégal jëm kanam euh, parti socialiste ñun ñu si suñu ginnaaw euh, aw ma dara lu may wax ci ci ci ñoom. Mm. acte trois décentralisation bi ban position nga ci am parce que jamono ji bëri na a na. waaw ñun daal euh, keroog daje nañ ak suñu bureau politique.